ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala ci mu wërsëgal ñu ñu daje ci ab néegam fas yéene jël benn bind ci wàllu fiq di sukkandikoo suñu téere bi di risaala bi ibnu abi zayd al xayrawani rahimahullah ñu ngi tolloon ci ñeen fukkeelu bunt bi muy baabun jumalin min al faraid ñu war a jël tey incha allah la ca mujj su dee ni yaa ngi yor traduction bu xonq bi yaa ngi ci page cent seize su dee da ngaa yor Samarodani yaa ngi ci page six cent soixante quinze ca ligne ba ca kaw fi muy waxe wa jumaau aadaabil xayri wa azimatuhu six cent soixante quinze ca ligne ba ca kaw ci Samarodani wa jumaau aadaabil xayri wa azimmatuhu tey jii mooy le dix ci jumaada al axir muy tombeeg le vingt quatre ci janvier ñu ngi noonu su dee bokk nañu gis incha allah ñu jël suñu bind bu njëkk day wax ne kon wa jumaau aadaabil xayri la nga xam ne moo boole mboolem teggini yiw wa azimatuhu ak la nga xamee ne nii moo koy tënk tatafarraqu tatafarraqu ma ngay teqali ko ay mi ngi cosaanoo ci an arbaati ahadis yooyu yépp ma nga nekk caroo ci ñett ci ñeenti hadis yi nga xam ne dafa jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qawlu nabii alayhi salaatu wassalaam ca may waxe yonente ba man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir koo xam ne daa gëm yàlla ca gëm bis bu mujj ba fal yaqul xayran aw li yasmut na wax yiw wala mu noppi wa qawluhu alayhi salaam ak waxam ja sallallahu alayhi wa sallam min xusni islaami almari bokk na ci luy rafetal diine yi nit ki tarkuhu ma la yanihi mu bàyyi lépp loo xam ne nekkul di ko itteel mi ngi noonu wa qawluhu alayhi salaam ak wax ji nga xam ne wax na ko ba tey li lazi ixtasara lahu fi lwasiya ca ka ñëwoon di sàkk mu gàttal ko ci dénkaane bi mu koy dénk la taxdab yonent bi na ko bul mer wa qawluhu alayhi salaam ak wax ja yonent bi salaa salaam wax almumin yuhibbu li axiihi almumin maa yuhibbu li nafsi julit dee bëggal mbokk julitam la mu bëggal boppam mi ngi noonu mbokk kon bu ñu xoolee fii mi ngi ñu doon wax ay teggin yi nga xam ni jullit da ko war a tegginoo ci kaw suuf te digganteem ak boroomam ak digganteem ak i moroomam mu ne nag yooyu yépp tey bu ñu la ko doon tënkal nga xam ni loo xam ne boo ko jëfee rekk da nga bokk ci jaami yàlla yi gën a baax nee na mi ngi jóge ci ñeent ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadis bi ci jëkk yonent bi alayhi salaam ne ki nga xam ne gëm na ni gëm na boroomam ca gëm na it àllaaxiraa ngi ñëw ngalla waay lu muy wax na nekk jàmm na nekk xayr xayr mooy loo xam ne day jëriñ lépp looy wax na doon wax joo xam ne day jëriñ nekk yiw wala boog nga noppi su dee ne amoo wax ji yiw nga la way noppil loolee mbokk ci teggi ni gën a rëy la bokk looloo tax ba borom xam-xam yi dañ dañ naan jàng leen ni ngeen di waxe ca jàng ni ngeen di noppee ak noppi des koy jàng te muy fexe ba loo xamee ne wax ko amul njëriñ nga bañ caa dugal sa làmmiñ loolu entraînement la darsi bi passé waxoon nañu leen ci ñoo xam ne dañ ci doon entraîner seen bopp ay ati ati at mi ngi noonu su ko defee loolu mooy xadis bu njëkk bi ama xadisu ñaareel bi mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bokk na ci nit ki diineem di rafet li rafetal diineem mooy lu ko amulul njëriñ mu bàyyi ko lu ko amulul njëriñ loolee romb na wax lu la amulul njëriñ ci jëf lu la amulul njëriñ ci foo jëm lu la amulul njëriñ ci la ngay wax lu la amulul njëriñ ci la ngay seetaan lépp loo xam ne amulul njëriñ nga la way nga bokk xadis boobu it tey jii wala lu mel ne moom ku nekk rek war na ko waroon a bind bind taf ko ci portable am lu la amulul njëriñ bàyyi ko te mooy bari na tey doomu aadama yi des heures et des heures ci seen vingt quatre heures yi dañ ko neenal ci portable ci loo xam ne amulu leen benn njëriñ amulu leen benn njëriñ loolu ñu xam ko ñàkk xam yokkul seen adduna yokkul seen àllaaxira amulu leen benn njëriñ ñu noonu portable ba daa gën a jege waaye loolu la ñuy wax ci télé ba moom la ñuy wax ci lu bari soo bëggee si diina rafet sa diina sell lépp lu la amulul njëriñ ba ko lu waral loolu mooy tànk yaa ngi nekk ci lu lu la amul njëriñ rek yaa ngi sàggane la laa waroon amal njëriñ ñu noonu même bu doonte ne bàyyi xel sa borom dafa ay askar sax te ji boo nekkee ci yenn yi lu ne rek lu ñu jël rek nga seetaan lu ñu jël nga nekk di topp ko ay heures yi heure la lay jëlal ci sa 24 heures loolu la ñuy bàyyi ci xel bu baax amma xadis bi ci topp mu ne benn waaye daa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko daal dama bëggoon nga dénk ma dénkaane bu gàtt dénkaane bu gàtt waaye fekk ki muy waxal yonent suñu borom da ko wax jawaamiul kalim yàlla da ko may mu mën a tënk man éloquence am xikma yonent bi wax ko wax ju gàtt laa taxdab bul mer bul mer laa taxdab waa ji sax ne na ko ah waaw teg ma cee dolli dara yonent bi ne ko laa taxdab bul mer ca mbokk wala fi dañ naan mer noonu boroom la mer noonu boroom la bul mer ça ne veut pas dire que ne ni bu mer nekk ci yow waaye loolu mooy bul topp sa mer mer yàlla ko bind doomu aadama comme ni mu bindee kontaan ñëppay mer waaye nag bul mer ay bul topp sa mer heure boo meree fexeel maîtriser sa bopp ba doo wax lu bon ba doo jëf lu bon loolu la am na nit ku dul mer loolu loolu amut mi ngi noonu mer boobu it dañuy gis ni dis na ko feeñal léeg-léeg ci heure boo xamee dañoo xotti war mooy yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn mësu koo merloo ba mu fayul boppam kenn mësu koo merloo lu jëm ci moom ba mu fayul boppam mësul am lu ne nag def nañ ko ko lu ne def nañ ko ko am maa nag ku xotti war mooy diine ji moom kenn daawul mën a téye meram mi ngi noonu bu dee nag lu jëm ci diine yàlla ji kenn daawul téye meram loolee kot mi ngi noonu mooy doomu aadama di jéem a not boppam kemtalaal kattanam ci bañ a topp mer mer tas na sëy yi wur te tas rey na bakkanu ñuur te rey dagg na diggante bu dul woon a dagg ci lan ay erreur yu ndaw rek kàddu gu jóg rek merloo nit ki mu wax loo xam ne nii musiba la wala def loo xam ne musiba la amma li nga xam ne moo mujjoon ci ndénkaane yooyu ñeenti ndénkaane yooyu mooy jullit day bala ngaa gëm li nga bëggal sa mbokk julit mooy li nga bëggal sa bopp li nga bëggal sa bopp ngay bëggal sa mbokk julit te loolu itamit mbokk julit boo ko toppee da ngay gis ne mboolem yiw day dugg ci loolu kenn ci ñun bëggulul boppam lu dul lu baax bëggoo ku la tooñ bëggoo ku la suufeel bëgg nga ku lay jëriñ bëgg nga ku lay respecté bëgg nga ku lay dimbali bu dee da ngaa ñàkk ilaaxiri loolee nga bëgg ñu defal la ko defal ko sa mbokk julit mu ne bu ñu xoolee ñeenti xadis yi képp ku lay jàngal ak mbaax ñeenti xadis yi ku ko melowoo baax nga yal na yàlla boole ñu ca nga noonu kon ñu jël beneen bind mu ne wala yaxillu lak du dagan ci yow mukk an tataamada alsamaa albatili kullihi ci ngay tey di déglu neen ya mboole seen wala an tatalazza wala ngay bànneexu bi samaai kalaami imraatin la taxillu lak ci déglu kàddu jigéen goo xam ne daganu la wala samaau shay'un min almalaahi walghina wala di déglu lenn ci instrument musique ya ak lépp loo xam ne ay woy la wala qiraatu alqur'ani billuxuun wala ngay jàng alquran ci ak jàngal goo xam ne nii almurajjaati ka tarji il ghina dañ koy delloo comme na woykat yi di woye ñuy woye noonu téereb yàlla ba wal yu jalla kitaab allah na màggal téereb yàlla bi al aziz bi nat lépp an yutla ila mi ngi noonu ci duñ ko jàng illa bi sakinatin wa waqaar ba duñ jàng téereb yàlla bi lu dul ci ak dal gu ànd ak toroxlu wa ma yuqinu an allaha yarda bihi ak lépp loo xam ne ah wóor na ko ni lii day lu yàlla gërëm la wa yuqarribu minhu ca day jegele yàlla ma a ihdaaril fahm booleeg nag teewal jéem a dégg la muy jàng fahm li zalik te jéem a teewal comprendre la muy jàng ca loolee mi ngi noonu mbokk fii day wax ci ne daganul jullit muy nekk di déglu ay kaddu yoo xam ne kaddu neen la te loolu it mbokk jullit am na lu ñu ci yàlla nattoo ci réseaux sociaux yi ay musiba yoo xam ne nit ñi dañ koy wax loolee bu doon tene ne dang dafa am ñoo ciy avertir pour ñu moytu ko loolu day ah déglu ko tasaare ko baax na waaye li ëpp tey ci li nit ñiy déglu mooy rek déglu ko pour reetaan ak yéemoo kaza wa kaza ci loo xam ni yàgg ngaa déglu mel noonu donc loolu jaru ko borom xam-xam yu jëkkee dañ daan ba ñuy déglu nit yi biddaa daawuñu nangoo déglu ci ñoom dara ndax xol dafa sensible bari na wax joo xamee ne nii boo ko yàggee dégg day mujj dem ba dootul am jeexital ci yow mi ngi noonu comme li ñu nettali ci Cheikh Bun Baz wala kenn ci borom xam-xam yi mam la kay ne dafa am benn waay bu ñëw ne ko man dey dama doon wër xabru Cheikh fulaan ci seen cheikh yooyee waaye nag dama wër xabru ba pare fàtte julli ñaari rakka léegi nag loolee nan laa koy dabantale gaa yi taaliba yi nekk reetaan ree ree xoolal ma lii rek ne moom waxu leen dara ñu nappi ñu toog après am keneen koo xam ne dafa dafa pose question ne waaw ñun de dañoo nekk ak koo xam ne dañ koo bett muy njaaloog yaayam kooku lan muy atteem ñëpp ne dina yi rëcc ñëpp tiit mu ne voilà nag léegi kii nga xam ne day njaaloog yaayam ak question bi ñu déggoon démb kay di wër xabru bi dafa julli ñaari rakka ban moo gën a garaaw yow mi xam diine xam ngeen kay la mu def moo gën a garaaw mais problème bi mooy boo yàggee dégg ay ay mbir day dem ba dootu am ci yow jeexital comme nag lii c'est très rare gis nga réaction bi su ko defee nañuy moytu vidéo yooyu ak son yooyu nga xam ni nit ñi lu ne lañ cay wax li ñuy wax Sénégal jàpp naa waxuñu ko fenn temps boobu nga ciy def xoolal beneen son bu lay amal njëriñ bu lay jàngal sa diine sa tawxid sa nangam nga nga nga jàngal ko temps boobu parce que temps bi moom day dem du la xaar loolee kon ku nekk ci ñun war a góorgóorlu bàyyi ci xel moo tax mu ni du ko du dagan mu koy tey di déglu ay neen neen yooyu lu mu mën a doon gannaaw ba it mu ne du bànneexu ci waxi jigéen bu ko daganul gis ngeen waxul daganul muy déggi waxi jigéen waaye bànneexu ci waxi jigéen jigéen bu mu mën a doon dagan na nga dégg kàddoom su dee ne la muy wax waxu njëkk la suñu boroom bi muy wax ak jigéenu xeet bi da koo jaarale ca soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu mu ne fala taxda'na bil qawl fa yatma allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa yéen jigéen ñi bu ngeen di wax bu leen nooyal seeni kàddu comme jigéeni Sénégal dañ ci gis koo xamee ne nii bu dajee góor gëm dëkkal ca koñ ba da nga naan ñii ñoo bokk ndey ak baay wallaay na muy le lewetal ak kàddu na muy kafe ak moom na muy ree ak moom du ko def ak jëkkëram du ko def ak frère am bokk loolu daganul yow mi nga xam ne yaay góor it daganul ngay déglu kàddu yu mel noonu amma bu dee wax bu jub ñëw ci am problème wax ko nga tontu ko loolu lislaam terewu ko moo tax mu ni du dagan mu cay bànneexu ñu ngi noonu du dagan it muy déglu ay musique te loo xam ne tey jii boo ko waxee ñu bari ay reetaan sax la leen di def ndax musique tey dañ koo boole ci ñun comme niñ boolee ndox ci suñu dund amul benn rajo booy déglu benn télé booy déglu amul benn émission lu dul musique moo koy ubbi musique moo koy tëj ku nekk am nga sa single am nga sa nangam am nga sa nangam musique pour ñun daa bokk ci sunu dund waaye mbokk musique baaxul yonent bi alayhi salaam ne woon na balaa adduna tukki dana am ci sama xeet ñoo xam ne daañu daganal ñeenti mbir yi alxir wal xariir wal xamr wal maasif balaa àdduna tukki nit ñi daan daganal njaaloo daganal njaaloo forme yi bari la bokk na ci yow jullit suñu borom mu ne takkal ba ñeent yow nga takk ba quarante jàpp ne lépp lu dagan la mi ngi noonu wala mi ngi noonu gannaaw ba bokk na ci suñu état yi tey jii xale bu jigéen bi jóg na day jaay boppam nga ne ko waaw jël benn carte jox ko da ko demal place sàngam boo demee heure nga ñu lay seet ndax feebaroog feebaroo waaye nag fu la neex wëral trois heures de matin deux heures de matin policier bu la téyel woon ko sa carte da ngay liggéey mi ngi noonu alhamdulilah ci ko wul fa bi xam naa au moins ñoom daañu arrêté ko loolee mbokk ay forme daganal njaaloo boobu la naka noonu it mu ne daañ daganal musique daañ daganal musique te ji dem nañ ba ay këri diine am ay orchestre musique mbokk lu mu nekk loo xam ne ni lu garaaw la way yi tamit dañ ko doganal islaam way yem xam muy wayi poésie nga xam ne waa ji da koy wax fekk du ànd ak ay jengal comme ni nga xam ne woykat yi caaxaan yi noonu la ñuy woyee yonent bi alei salaam amoon na ci ay woykat ku mel ne Hassan ibnu Thabit ku mel ne ay Ubay ibnu Kaab ak ñeneen ak Abdullah ibnu Rawaha ak ñeneen ak ñeneen loolee nga xam ne day nekk rek benn poésie wax ji ñuy wax ngir sawarloo nit ki ci diineem amma musique yi ñuy woy yi loolee mbokk jullit dafa war a moytu loolu gis nañu naam mu ne it war na heure bu jógee di jàngal quran mu bañ koo jël di ko woyontoo jël ko di ko woyontoo loolu nag bokkul nag mu koy jàng jàng tajwid boo xam ne jàngin bu neex la am maa di ko jël comme eeru woykat yi ni ñuy woyee alxuraan téereb yàlla bi kenn du ko def noonu waaye loo ko gën a mën a neexal nag ci loo xam ne réeglu da njànginu alxuraan la loolee dara néew ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëy na dajeeg ibnu abu musa al ashari taa ji ne hee ay abu musa démb maa maa romb ci guddi dégg la ngay naafi la ma toog di la déglu mu ne sahaaba yi kii day yàlla may na ko benn buum ci buum yi mayoon daawuda abu musa ne cey su ma xamoon la yàgg may déglu kon day dinaa la ko neexalal ak neexal mi ngi noonu la kulli xaal mi ngi noonu lislaam bañul loolu waaye mu ne heure boo xamee ne nii yaa ngi jàng téereb yàlla bi na nga màggal xam li ngay jàng mooy lan àndal ak dal àndal ak toroxlu moo gaa yi dem ngeen ci équipe wàcc kaamil yi ah caamin boo xam ne ngeen ci rek di jaay léegi mu xool gauche xool droite ndax gaa yi nga koy xool ah dégg nga mbokk loolu du loolu loolu fay alxuraan la jaay alxuraan la loolee mbokk baaxut bu dee da ngaa bëgg yow sëñ bi sa bàyyi ngay jàngalam ku muy jàngal baaxut jàng boobu baaxut da nga noonu alxuraan des koy jàng ci dal des koy jàng ci toroxlu ni ko yàlla wàcce xoolal erreur yi nga xam ne da ciy def day gis ne gaa yi jàpp ne moom kat ñoo dàq jàngiñ ci des bu jeexalee seen jukki dañuy ñëw ci ki dend ak ñoom bu kiy jàngee page bi ki jàng page bi ñu ubbi ki jàng page bi ki jàng page bi mbokk ndax téereb yàlla bi noonu la war a demee loolu déedéet su ko defee kon loolu nga lay duñ def noonu nga alxuraan heure boo koy jàng nga gëm ne yaa ngi def loo xam ne lii de lu yàlla gërëm la te lu lay jegeel yàlla la waaye yit nga boole ko settantal maanaa ya ca nekk ba comprendre bu baax la nga xam ne nii moom ngay jàng loolee mbokk mooy njàngeen ba gën a mat doonte ne yow mi nga xam ni yàlla mayigu la nga comprendre aaya yi tamit te loolee xamal ne perte nga lu rëy ci diine yàlla ci comme naka suñu mag ba Abdul Aziz Touré di waxee yàlla na yàlla sàmm ko mu ne xamul ko gën a perte bànneex bi nekk ci tiimtiiram yàlla bi di jàng aayaat yi muy dugg sa xol bi di dugg sa deret bi xamul ko gën a perte ci koo xam ne loolu amu ko ah su ko defee yéen ndaw ñi fexe leen dégg téere borom bi jàll waala waaye même bu dee comprendre ko it bu mu la tee jàngal xuraan xarf boo jàng am nga fukki tuyaaba xarf boo jàng am nga fukki tuyaaba su ko defee bari naa ko wax sama waa kër kenn muccul ci portable dama leen di bëgg a wax mën a cëy ak a neexoon temps bi ngeen di def ci portable ceer ba ceer ba rek ngeen di ko jagleel téere bu yàlla bi kon semaine bu na nga wàcc kaamil semaine bu nañu wàcc kaamil te yéen a ma gën a xam yéen ñii tamit ñu bari ci yéen li ñuy def ci portable buñ ko doon def ceer ba ci téere bi yàlla bi semaine bi da nga daaneel kaamil mi ngi noonu donte ne boo tiimee portable doo ko yëg deux heures de temps doo ko yëg mi ngi noonu su ko defee kon loolu di mbir boo xam ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax ñu jël beneen bind mu ne wa min al faraidi al am naam am joolu ah foofu la de waaw wa min al faraidi bokk na ci farate yi ah ah ah waaw waaw waaw waaw dafa waaw day wax ndax gars yi waaw ñu noppalu tuuti ngir mbokk yi xëy na ñàkkul laaj bu ñu bëgg a laaj bala ñuy jàll ci yeneen bind yi incha allah naam waaleykum salaam wa rahmatulah. ala kulli xaal dañu ñaan yàlla nangul ñu waaye mbokk loolu ay mbir la yoo xam ne sahabatul kiram xamuñu ko woon te benn ay di yuuxu di yuuxu di daañil jigéen ñi say fii góor ñi xëtti fii loolu mbokk mbir la yoo xam ne sahabatul kiram xamuñu woon loolu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax alxuraan mën na su ko jàng neexal ko waaye li ñuy xewal grand théâtre loolee mbokk dafa dab l'islam islam xamut loolu loolu moom ñu bàyyi ci xel bu baax islam xamu ko suñu maam xamuñu ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam su dee ne naam bismillah naam naam taal alquran tëdd muy jàng nga koy déglu baax na amma bàyyi ko ma continuer di jàng ngay nelaw déedéet suñu borom ne ne ida quri'a alquran fastami'u lahu soo demee ba xam ne mënatoo ko déglu fayal alquran ci loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli hal naam waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu
dama am benn situation ma léegi ci réseau réseaux sociaux yi am benn groupe bu ñu créé suñ xëyee ku nekk jël naa saar tel tel tel par exemple jël naa un deux ñii li jël naa trois quatre ñii jël pour ñu wàcc alxuraan loolu dama ko rafetluwul dara dama xamoon na ndax mën na nekk wala déet
wala ku li xaal mooy comme ni nga waxee rek mooy yooyu yëpp réseaux sociaux yi moom moo ko moo ko indi waaye islam xamuñu woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu daje benn place séddoo alxuraan bi pour wàcce ko loolu xamuñu ko jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahabatul kiram la ñu xamoon dañ daan dem ba yàgg ñu toog ne taalaw fa nu'min saa kaay leen ñu gëm ab waxtu ñu toog kenn di jàng yaakaar naa amul kenn ci yéen déggul toog nañ benn jataay yonent bi alayhi salaam ni ibnu Mas'ud waaye jàngal ñu alxuraan mu ne ko ah ma jàngalu ko teew mi ko yàlla wàcc mu ne ah mais dama ko bëgg di déglu ci keneen mu ubbi suratu nisa ba jàng 40 aya fay suñu borom di waxee ne fa kayfa iza ja'na min kulli ummatin ila axiri yonent bi na ko doy na doy na nee na bi ma siggee maa ngi fekk bët yaa ngi toq ragooñ sahabatu kiram it noonu lañ daan def kooku surtout que mel na Omar ibn Khattab bëri woon ne di ko def waaye ñu toog ku ne yor sab jukki di jooru loolu xamuñu ko woon mi ngi noonu day sax ñu amuñu woon sax mooy yooyu mi ngi noonu kon ñun bokk nag ak réseaux sociaux bu ñu xëyee ñu ne waaw tey kii mooy def lii kii mooy def loolu mbokk nekkul ci jàngalem lislaam wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam
لعن الله آه، لعن الله لعن الله صوت المرض ولا بذكر الله
ala kulli xaal loolu amul laana allahu sawtal mara ila bi zikrillah loolu amut la wér ci aaya ba mooy li suñu borom wax wa qulna qawlan maarufa qawlul maaruf mooy lépp loo xam ne day doxal adduna wala muy laaj bu ñuy laaj ci seen wàllu diine mi ngi noonu amma am na nattu bu ñu yàlla nattoo suñu jamonoy tey jigéeni jullit toog ci kanamu góor di xaacu di jàng alquran loolee mbokk sahabatul kiram xamuñu woon loolu mi nga noonu am na même ay ay concours yooyu dégg ñu koy def yenn ci réewu arab yi fañ koy defee sax góor du fa nekk yooyu yëpp kon ala kulli xaal bu ñu demee ba adduna avancé mooy tax nit ñi di fàtte lu bëri waaye nit ñi bu ñu fàttu lañ xam ne lislaam dafa santoon jigéen mu toog ci këram jàngal waa këram sahabatul kiram dañ daan ñëw ci suñu yaay Aïcha ci gannaaw xijaab laaj ko ay question mu tontu leen waaye islam danaan jigéen du nekk imam jigéen du nodd jigéen du liqaam jigéen du kaza jigéen du kaza lu waral loolu mooy parce que am na góor ñu ko ko mën a defal kon moom jigéen nañ ko féetale ci leneen la ëpp solo lu loo xam ne nii lu ci bëri góor mënu ko loolu daal moom mooy mbir bi wallahu subhanahu wa taala aalam naam ala kulli xaal kon ñu ñu ñu ñu continuer mu ne wa min al faraidi bokk na ci farata yi al amru bil maaruf mooy nañuy digle njëkk wa nahyu anil munkar te teru lu bon ala kulli man busitat yaduhu fil ard ci képp koo xam ne ni sa loxo tàllalu na jëm ca ñoom ci kaw suuf wa ala kulli man tasilu yad tasilu yaduhu ila ila zalik ak képp koo xam ne loxoom dana jot jëm ci loolu fa in lam yaqdir su ko mënul nag fa bi lisaanihi mu wax ci làmmiñam mu des fa in lam yaqdir su ko mënul fa bi qalbihi mu daal di koy naqarlu ci xolam rek mi ngi noonu mbokk kon dañuy gis lii ci ponk yi gën a mag ci ponk diine ca la bokk diglu lu baax teru lu bon looloo tax suñu borom ne wal asr inna al insana la fi xusr illa lazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr doomu aadama yëpp ñu ngi ci pertange lu dul ñi gëm di diglu lu baax di teru lu bon loolu kon ñépp la war déglu lu baax teru lu bon borom bi al borom bi sax nee na lu añ alladina kafaru min bani israil ala lisani daawud wa isa ibnu maryam zalik maasu wa kaanu yactaduun kaanu la yatanahuna an munkarin faaluhu suñu borom mu ne isa ibnu maryam ak daawuda ñoom ñépp rëbb nañ bani israil bokk na la taxoon mooy daaw ñu digleente lu baax daaw ñu tereente lu bon léegi nag mu ne loolu da nga ko war jëfe sa loxo ci képp koo xam ne sa loxo yilif na ko te masalan tey jii xoolal mbokk natt bi ñu yàlla nattu président de la république day xëy suba rek ne tey tey tey tey laa wax bëgguma gis kenn ci mbedd mi à partir de 9h gars yi nu ñuy def bu 9h ñëpp daw ah mi ngi noonu moom moo ko man ndax imam Sarr mën na loolu mi ngi noonu waaye nag sëñ bi bu dee imam Sarr mënul loolu it na xam ne yàlla may na ko njabootam. ki yàlla may sa njaboot sa loxo ngi yem sa njaboot yow préfet bi yaa ngi yem ci département gouverneur yaa ngi yem ci région képp koo xamee ni nii sa loxo sa kilifteef mi ngi ci ñoom su boobaa lépp lu baaxul dindi ko ak sa loxo amaa nag bu dee ñoo xam ne sa loxo yëggul ci ñoom ay ilifoo leen su boobaa it la nga mën mooy wax leen lii de baaxul lii de lu baax la lii lu baax la ila axiri diggal leen lu baax cere leen lu bon suñu demee nag ba gis ne digale lu bon digale lu baax loolu ak teru lu bon loolu kat soo ko waxee mën naa jur fitne bu gën a garaaw la nga doon tere su boobaa ñu ne ko naqarlu ko sa biir xol mi ngi noonu bu jógee di déglu lu baax di teru lu bon bi charte mooy lu gën a bon loolu du am même bu dee duñ ko bàyyi it da nga ko war a def parce que mu nekk xujja ci kaw jaam yi amaa nag bu naree jur loo xam ne ne musiba la loo mel noonu da nga koy naqarlu rek sa xol mi ngi mel ni li ñu nettali ci ibnu taymi rahimahullah ànd nag benn taalibeem ñu romb ay gaay ñu ngi nekk ci seen benn baar di naan sàngara mu ne ko waaw mais ñii duñ dem laayi leen biir mu ne ko bàyyi leen xanaa xamoo ñi ñii seen jàmm mooy ñu toog di naan sàngara bu ñu màndee tëdd nelaw buñ ko deful agressé dañuy dem di rey nit ñi gaay yi kon koy ni ñet bàyyi ñu musiba bi yem ci ñoom yaa ngi dégg donc dañ naan diglu lu baax te lu bon waaye su ko def tant que ragalu fitna bu gën a garaaw loolu juddoo ca su boobaa moom naqar lu ko sa xol rek mi ngi noonu fa bi qalbi kon mu ne ba tey wa farada ala kulli mu'min yàlla faratal na ci bépp julit an yurida bi kulli qawl mu namm ci bépp wax bu muy wax wa amalin ak jëf bu muy jëf minal birri ci ak njëkk mu namm ca wajhallah fekk kanamug yàlla rek a tax mu koy def alkarim bu tedd ba wa man araada bi zalika gayra allah képp koo xam ne namm na ci loole muy def keneen ku dul yàlla lam yuqbal amaluhu jëfam boobu kenn du ko ko nangul wa riyaau shirkul asqar ndax ngistalkat bokkaale bu ndaw la bokk na ci loolu it wa tawbatu faridatun min kulli zanb tuub bakkaar day farata la ci bépp bakkaar min gayri israar ci lu àndul ak nag continuer gannaaw ba nga tuubee wal israaru al muqaamu ala zanb sax ca mooy israar mooy continuer ca mooy sax ca la nga xam ne mooy bakkaar ba wa atiqaadul awdi ilayhi ak di fas ne da ngay delluwaat ca bakkaar ba wa min at-tawbati raddul mazalim bokk na ci tuub ba tey delloo tooñi ya nga tooñ jaami yàlla yi wàccinaabul mahaarim sori lépp loo xam ne nii yu xaraam yàlla wa niyatu an la yaud nga yéene yit ne lii dootuma ci dellu mukk wal yastaghfir rabbahu nay jiggulu boroomat boroomam gannaaw li lépp nag wa yarju rahmata daa di yaakaar yërmandeem wa yaxaafu azaba daa di ragal lii di mbugalam mi ngi noonu mbokk kon day wax ne jullit la war naa góorgóorlu ba lépp lu muy wax wala lu muy jëf ci mbaax du ca sàkku lu dul ngërëmal yàlla jalla wa ala ca xam ne ngistal bokkaale gu ndaw la ca mbokk nañu xam ne wax ji mooy bunt bi gën a tar ci diine waaw bunt bi gën a tar ci diine li taxoon sahabatul kiram li leen teewoon nelaw ñoom ñëpp ragal seen bopp ak naafiq mooy li ñuy tuddee ngistal mbokk ngistal dafa sew dafa làqu ca mi ngi feeñ ci jaamu yàlla mooy yaa ngi jaamu yàlla jaamu yàlla googe jur ngistal borom bi subhanahu wa taala day wax ni fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada ki nga xam ne yaakaar ne day dajeeg boromam nay jëf lu baax ci jaamu yàlla googu bu mu ci bokkaale ak dara loolu nag mbokk jullit dafa jafe mucc nga jël sa alal di ko def ci fi sabilillah ci lépp sell ci yàlla tax di jàngali diine tasaaroo ci àdduna bi ci lépp sell yàlla tax gàddu jaasi jihaad ci lépp sell yàlla tax loolu lu jafe la misaal bi tax ma wax ko yonent bi alayhi salaam nee na bokk na ci ñi ñuy jëkk dugal sawara ñetti ñu mel noonu fekk lañ doon def ñi ngi bëggoon nit ñi gërëm leen ca yal na yàlla musal ñu ci loolu looloo tax dañ ko war a moytu ci di ñaan yàlla musal ñu ci loolu muy mi ngi noonu ku nekk di xeex ak bakkanam kem talal kattanam bépp jëf boo def nga ñaan yàlla nangul la ko mi ngi noonu mu ne bokk na ci it ngay tuub ci xam ne tuub farata la ci bépp bakkaar bakkaar bu mag ak bakkaar bu ndaw moytu tuub ba pare sax ca bakkaar ba te dafa am tuub yoo xam ne nii dafa soxlawaat ak tuub masalan waa ji ah moom kay yàlla ñu yàlla jéggal rek waaye jël kaasub sàngara di naan wala dem yàlla ñu yàlla jéggal continuer sag njaaloo mbokk loolu bakkaar la ci kaw bakkaar heure bu la yàlla wërsëgalee tuub gu sell tuub googu nga doon wax da nga ko war a tuubaat mi ngi noonu loolu tax borom xam-xam yi bari daan wax naan ñun de suñu tuub daa yeyoo ñu tuub ko ndax tuub la goo xam ne nii sincèreul ndax képp ku tuub ba pare continuer ci sax la ngay def du tuub mu ne it waroo mukk di am benn sikk sàkka ci sa xol naan da ngay dellu ci biir bakkaar boobee su dee ne tooñ nga sa digganteeg sa morom la astaxfirullah rek du ca doy déedéet demal nga delloo ko la nga xam ne yorooloon nga ko ci tooñ su doon wax ju ñaaw la doo ko wax nga ñaan ko mu jéggal la loolu mi ngi noonu gannaaw bi it nga dogg ne lii dootoo ko def gannaaw ba nga riccoo ne bu démb doon na tey dootuma ko def lii lépp nag heure boo ko defee boo jégguloo borom bi yàlla baal la te loolu it mbokk mi ngi noonu bakkaar du ne rek da ngay def bakkaar astafurlaa jeex na déedéet astafurlaa ba la nga xam ne mooy tax muy valable moo di ne ni dogu da koy jiitu ci rëccu la nga xam ne def nga ko dogu ci ne dootuma ko def bàyyi bakkaar ba ci saa si bu dee aqul mo- doomu aadama la nga delloo ko ko ah su boobaa soo nee astaghfirullah yàlla baal la mi ngi noonu gannaaw ba nga tuubee nag nga daaji nag yaakaar yërmande yàlla ca it bañ a def alqanuut mooy ñi nga xam ne dem nañu ci bakkaar nuur ci lu ne def nañ ko ba jàpp ne ah man xam naa ne c'est fini man safara rek laa jëm déedéet mbokk loolu erreur bu rëy la mi ngi noonu ak loo mënula def ci bakkaar rey nitoo bokkaale lu mu mën a doon soo demee ba yàlla wërsëgal la ak tuub rek yaakaar la nag yërmande yàlla ci yàlla ku tuub ci sincère dan la baal waaye nag yaakaar ngay day ànd ak ragal mbëggalum yàlla mbokk ñaar yi mooy tax a texe yaakaar yërmande yàlla ragal mbëggalem malheureusement nag booy dund ci dëkk yu mel ne Sénégal yaakaar yërmande yàlla moom du problème nit ñi ci la ñuy xëy ci la ñuy gont am maa ragal mbugalu yàlla déedéet loolu moom génne nañ ko seen programme pour ñoom am nañ garantie yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala du leen mbugal loolu nag mbokk ay njuumte la yoo xam ne nii yow julit fexeel ba bu ko def mukk foo mën a toll del yaakaar foo mën a toll del doon koo xam ne nii kuy ragal la sa borom subhanahu wa taala waaw mu ne ba tey it buñ jëlee beneen bind mu ne wa yatazakkaru nicmatahu ladayhi war nañoo doon di di fàttaliku xéewal ga yàlla def ci yow wa yashkuru fadlahu mu daa di gërëm ngëneelu yàlla ca moom bil amali ci doon loo xam ne dañuy jëfe bi faraidihi lay farata yi yàlla dogal wa tarki ma yukrahu waaye it di bàyyi la yàlla sib la nga xam ne sib nañ ko fi'luhu ci ñu koy jëfee wa yataqarrabu ilayhi di jéem a jege boroomam bi ma tayassara lahu min an nawafil ca la nga xam ne yomb na ñeel ko ci ay nawafil xayri mooy naafil yu yiw ya wa kullu ma dayya min faraidihi lépp loo xam ne nee na loon nga ko ca faratay yàlla yi fal yafalul aan yàlla waay na ko def léegi wal yarghabu ila allah ca xemmem jëm ci yàlla fi taqabbulihi ci mu nangul ko ko wa yatuubu ilayhi min tadyiihi ca daa di tuub dellu ci yàlla te neenal gam neenaloon ay farataam mi ngi noonu kon mbokk jullit day wax fii rek ne jullit bi war nay bàyyi xel moytu ay bakkaar bokk na lu ko ciy dëmbali fàttaliku xéewalug yàlla ci moom te mbokk doomu aadama bu xalaatee li ki yàlla may yaa ngi dox say soxla am na ñu mënta dox yaa ngi gis am na ñu ko mënul yaa ngi dégg am na ñu ko mënul yàlla mi ngi la may loo lekk am na ñu ko amul xéewal yooyu boo ko fàttalikoo fokk nga mën a sant yàlla ba moytu bàkkaar yu bari gannaaw bi it bokk na ci sant yàlla mooy nga jëfe ay farataam ca bàyyi la yàlla bañ te waaye aka neexoon lii ñëpp xam ko ndax ñu bari na nga xam ne noonu lañ jàppe ak cant ak safaanoo ak lii boo ko dañu xam ne sant yàlla mooy def ay farataam bàyyi ay tereem képp koo xam ne bu xëyee fajar ma nga saxal alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba gee jot ca faratay yàlla yi mu neenal ko tere yàlla yi mu xuus ca xamul luy alhamdulillah alhamdulilah mooy sant ñeel na yàlla naka la ñuy sant yàlla mooy yàlla xéewal na la gannaaw ba nag yow it defal la nga xamee ne ni mooy mooy lam la lam la xéewal nga def ay ndigalam bàyyi ay tereem mu ne it gannaaw farate yi ngal la way góor góorlu loo man ci ay naafila ngir jéem koo jege sa borom ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na suñu borom nee na jaam bi bu defee farate yi ba pare du deñ di góorgóorlu ci ay naafile ba ma bëgg ko ba ma bëgg ko parce que li tax jur mbëggeelug yàlla mooy gannaaw farate yi ngay góorgóorlu ci ay naafila ay julli la ay koor la sarax yi ngay génn après zakat la ila axiri bu ko defee mu ne ki nga xam ne it yàlla nattu woon na ko mu sàggane benn farata julli koor wala zakat mu ne ngalawaay ku mel noonu na góor góorlu daal di koy fay léegi bu mu ko xaari ëllëg da ko fay ca itamit mu xemmem jëm ci yàlla yàlla nangul ko ko yàlla nangul ko ko ca suñu borom ku tuub tuub bu sell it yàlla yàlla mën na la koo nangul on te ne ni tey bakkaar tey bàyyi julli borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax yu bëri ndax kii tey julli bàyyi ko ndax mën na koo fay ala kulli xaal la chaque ne lu garaaw a garaaw la waaye lu mën a doon rek fay ko ca yaakaar yàlla baal la mun a it na nga tuub dellu ci yàlla gannaaw ba nga fayee farata ba la julli ga koor ga la ak lu mën a doon bul jàpp ne fay ga nga ko fay moo koy fay abadan te la chaque ne ki nga xam ne waxtu julli jot na amul benn ngant julliwul ba julli ga paase bu julli woon téeméeri junni julli mënul fay julli ko gi lenn doo nga ko mën a fay tuub gu sële digganteem ak boromam tey ñi ngi weeru koor nga am mariage wala ngénte ah yaa ko tey dog bokk bis boobee boo wooroon sa desutu dund yëpp mënoo ko fay xanaa kay mooy da ngay woor ab bis waaye nag nga góor góorlu daa di tuub ba baa ngay dajoo ak sa borom allahuma am na ca bu dee yenn dogin yoo xam ni fokk nga kafaara ko su dee ne da nga doge sa koor lii nga xam ni moom mooy ànd ak sa soxna njaaloo moom waxi noppi waaye ànd ak sa soxna bëccëg weeru koor gannaaw tuub ga ngay tuub da nga war ñaari weer yu tegaloo bu dee leneen nga doge koor it borom xam-xam ñoom nañ ci ixtilaaf am nañ ne dog-dog rek la loo mën a doge sa koor kafaara ga mooy da nga war ñaari weer amaa nag loolu borom xam-xam yi dëppoo wuñ ca ala kulli xaal mbokk comme géegi jot na dañuy bàyyi bilal mu noddu foog naa ne suñu paree dana des quelques minutes incha allah ñu jagleel ko de suite question yi mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain kiy dégg imam wax muhammadu rasulullah nga wax sallallahu alayhi wa sallam ci julli gi ala kulli xaal julli gi yàqul waaye waroo ko woon a wax waroo ko woon a wax dégg turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du tax ñu julli ci moom ci biir julli mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah waaw ala kulli xaal teggi ni jàngekat xam nga léeg-léeg toogaay yi dafay doon toogaay yu yàgg pendant une heure de temps dana nekk léeg-léeg mu jafee ci ay nit ñëpp ñuy banque seen tànk tout ce temps ala kulli xaal doomu aadama yi war nañu respectante seen biir ñoom ñëpp ku ne jox sa moroom mu orma lépp loo xam ne nii dañ ko ciy def rek mu bañ a jublu ak ñàkk worma mais bu ci loolu amul incha allah loolee dara nekku ci wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waaw waaleykum salaam wa rahmatullah naam nga nga dafa lekk journée bi yëpp waaw wala kulli xaal waaw wala wala wala ala kulli xaal ah bu dee ne waa ji xam ne dafa woor fàtte na daa woor midi ba 18 heures mi ngi lekk su dee ne wér na ne ne daa fàtte na daa woor lekk googu du yàqu kooram bu dee ne koorug na fila la dëppoo nañ ca bu dee koorug farata la nag borom xam-xam yi dañ caa wuute bu dee lu mel ne mazhab malik ñoom dañ naan koor gi kay yàqu na amu ca benn bàkkaar nag waaye koor gi moom yàqu na fokk da koy fay am na yeneen i borom xam-xam yu jàpp ne jarul mu koy fay ndax yàlla ko lekkaloo mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ñu mujj ah ah ndax mënees naa jàngal xuraan ci réseaux sociaux naam bu dee ne bu dee ne ki lay jàngal ah ki am ku nekk di la jàngal à distance ah waaw bu dee ne loolu dara nekku ci nit ki nekk à distance di la jàngal li wax ngay dégg gannaaw ba ngay wax mu lay jubbante loolu dara newu ci fekk na rek kay jàngale fekk mën na li muy jàngale incha allah waaw ñu mujj ci mbokk bi waaw waaw waaw ah naam ala kulli xaal aku jàmbur boo ko yoree nga wër wër gisoo boroom dañuy seet ndax gis nga loo xamee ni dul taq ci moom la ci doomam wala ay frère am nga xam ne ay alalam bu fi bu bu fi ñoom ñoo ko waroon a doon su boobaa nga jël àq ba jox leen ne leen kii kat sa doom moo ko moomoon wala sa frère moo ko moomoon su dee ne loolu lépp dara amu ci su boobaa da nga koy jël nga sar xel ko yàlla moom moo ko gën a xam yool ba dana ko jëriñ ba pare yool ba dana la jëriñ loolu daal mooy nekk ci wàllu googee wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain